jaman lañ lay may pate jox la ko tekki njolloor li ñu neex ci teraanga ji mooy bër mbur géej lay xaar naaru këru jaman lañ lay may jox la ko diggu njolloor pate lu ñu neex ci teraanga ji mooy boy mbur géej lañ lay xaar pate mbëru askan wi boy ndam rek lañ la yéene borom bur géej ne ko jaarama paate booy suñu mbër me ne naa ko jaarama paate booy suñu mbër me bur géej sa kër maam ngàcce ngalaama suñu mbër me ne naa ko jaarama paate booy suñu mbër me naaru góoru jamal laa lay may pate jox la ko diggu njolloor li ma neex ci teraanga ji mooy pate mburgeej laa lay xaar lañ lay may jox la ko diggu njolloor pate lu ñu neex ci teraanga ji mooy mbër mburgeej lañ lay xaar pate mburu askan wi booy ndam rek lañ la yéene borom bu géej